وعلى العبادة بمفهومها الشامل وعلى الأدب المرضي ولنشمر عن ساعد الجد من أجل كسب الحلال للإنفاق في وجوه الخير كما دأب عليه أسلافنا من المريدين السابقين Bassirou nee بك لول ngi bëgg lool di leen leeral ne moom ak taalibe murit yépp maase nañ gërëm leen sant leen ci bokk loolu day wane ne xam ngeen ne li nu bokk du lu ñuy seddoo lislaam de su ko seddoo senegal de su ko séddoo yéen kilifa diine yi sëriñ Bassirou nee na sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ci coono yi ngeen toggoo ngir ñëw Touba li ngeen ëmb ci seeni xol mu jëm ci Touba sëriñ bi xam na ko lu Touba mos xewle ngeen teew seeni waajur nag ak seeni maam noonu lañu meloon dañoo soppante won ta yalla rek tax jappante won ta yalla rek tax yow ñi ci monsieur Antoine abdullah diom serigne Basiru neena serigne bi neena mi ngi lay nuyu ya gi nga andal di ñaan nga jot li nuyoom ak cantam ak ngeureumam ki yalla tek ci bop rew mi muy monsieur Macky Sall ak mbooleem gouvernement bu senegal ndax ñom kat japp nañ ci bis bi nañ ko daan defe ndax xam nañ bis bi seen bis la ba tax na bis bi mel na na mu daan mel wala mu raw na mu daan mel mi ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo man moo sañ moo am yàlla na yàlla wommat leen lépp lu ngeen mébét ngir lëggéeyal ko askan wi ak réew mi suñu borom may leen tawfiq bi ba ngeen man koo sottal yéen mbokk yi nga xam ne ay parti politique ngeen fi teewal ak fu ngeen mën bokk ak jaamuri yi deful politique sëriñ bi nee na sant na leen ci seenu teewaay xam na ne fu màggal jotee dootu leen am jàmm fekk teewu leen Tuubaa mi ngi ñaan yàlla yàlla may leen tawfiq ba li ngeen yéene ci Sénégal muy yëkkati ko ca kaw ba ñépp seen ko yàlla defal leen ci ndam sëriñ Bachiru nee na yéen taskati xibaar yi moo xam tasukaayu xabaar yi nga xam ne dañ koy jàng ak yi nga xam ne dañ koy déglu ak yi ñuy xool ak site internet internet yépp nee na mi ngi leen di sant ci taxaw bi ngeen taxaw ngir jàpp jottale màggal gi yaatal ko ba ñëpp jot ci nee na mi ngi leen di ñaanal mi ngi leen di gërëm képp koo xam ne daal def nga sa loxo ci màggal gi ak noo ko ci mën a defe nee na mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant ci turu sëriñ bi bu loolu jàllee sëriñ Bachir nee na élection élection yi mi ngi ñëw

kenn ku nekk mën a siggi xool sa moroom ndax mosoo ko wax lu ñaaw wala nga def ko lu ñaaw ndax dañuy xam ne yàlla mooy joxe yàlla mooy xañe sëriñ ba Bassirou nee na sëriñ bi nee na mi ngi gërëm waa nguur gi rawatina ministère de la santé ci seen taxawaay bi ñu taxaw ci jàngoro ji bi mu tasaaroo ci réew mi jàngoro ji bi mu tasaaroo ci biir réew mi te muy jangoro jo xamne jaaxal na aduna rew yi nga xamne ne man seen bop sax jaaxal na len waye seigne bas neena seigne sëriñ neena mom xamna ne corona jaamub yalla la yalla ko sak yalla ko yabal yalla neena uma ya'lamu junud rabbika ilahu neena nak l'islam dafa am lum ñu jàngaloon mooy soo demee ba jaxle ba jax ba xamato fo jëm da ngay delu ci yalla motax bi ndox mi taxawé mu tëye taw corona bi yok sëriñ muntaka dafa woote ne na ñepp dajalo dekk yalla seen lox toroxlu ci karam yalla tuubal ko sak sarax ñaan ko ñu jang ay junni junni kamil alquranul karim jang ay junni junni ci qasid shahmat Bamba qasid yoyu nga xamne dafa dafa barkeel te ci tuddu yalla sante yalla sabal yàlla bàkk yàlla màggal yàlla jéggalu yàlla ñaan yàlla tawassul ci alxabibul mustafa sallallahu alayhi ñaan ci barkeem ba ñu ko defee day ñëpp xam nañ ne ndox mi wàcc na corona bi wàcc na nee na nag médecin yi li ñu santaane muy sàmmoonteek liy joxe wér-gi-yaram teewul dañ koo jëfe dañ ko santaane ndax ñoom la ñuy santaane dafa dëppoog la lislaam di santaane ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يا الله مانو بولن خارو تي أمنا لو خامن سوكو دفاي داغي خارو مبوك ني سيرن بشير نينا سيرن بي نينا ميغي مساو ñinga xamne bi ndox mi wacce dañu genn seeni kër and ak tumuranke ak jaxlé waaye bi mu amee sëriñ bi nee na xam na ne gouvernement bi def na ci la mu man ma nga cee góor góorlu waaye nag fas lu mu daw daw dañ koy làbbali mu ngi digal gouvernement di leen ñaan lu ñu def ci effort ak coono nañ ko yokk li muy ñaan daal mooy mbën ñu dem ba nga xam ne dañ koy weesu ba nawet bu jotatee kenn du génn sa kër waaye nee na nag ndox mi li muy bari bari bari ak li mu yàq-yàq nañu xam ne nag taw moo gën bekkoor ndax bekkoor moom day faagaagal koom-koom day tas am réew day tukkal àdduna te taw moom yërmaande yàlla la yàlla nee na wa huwa alladi yunazilu lxaysa min baadi ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa alwaliyu lxamid sëriñ Bachiru nee na sëriñ bi nee na mbokk yi mu bokkal lislaam mi leen di fàttali ne jikko yu rafet yi lislaam santaane nañ ci gën a tënku mooy nañuy jéggale te bañ di fayu nañuy jëlale nañu wàññi coow li lépp lu amul njariñ nañ ci jàpp sunu njàmbur yàlla nee na fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah te itam yonent bi nee na bokk na ci lislaam ju rafet nit ki day jàpp ak njàmburam nee na itam ku gëm ne su ëllëgee loo defoon wala nga wax ko yàlla fay la ko del wax lu rafet sëñ Basiru nee na sëriñ bi nee na mi ngi dénk ay doomam ak sëtam ak i sëtam ci réew mi moo di violence nañ ko moytu lépp lu koy waral rek nañ ko moytu ndax de violence du jur lu dul violence nañu xool ci réew yi ñu wër am na ci réew yoo xam ne ña ngay rayante ña ngay xiiroo ña ngay ŋaayoo ña ngay xeex ña ngay boddi konte ci biiru xeet ña ngay boddi konte ci wàllu politique te yàlla dogal na Sénégal mucc na ci kon nañu sant yàlla ci xéewal gii mu ñu xéewal mooy jàmm ji ñu am waaye nag jàmm dañu koy suuxat jàmm dañu koy sàmm suñ Basiru nee sëriñ bi nee bokk na ci nag lii xañe jàmm jumtukaayu xarala yu bees yi nga xam ne moom la gone yi xewal di ca nekk gu dégg ba cëg ba duñ tal leneen muy sànq seen seenu ko waxtu di yàq seenum njàng ñuy génn ay photo ak vidéo yoo xam ne ngor da koy bañ diina da koy bañ di yàq der deri gor nee na ñaata nit yu xaretoo woon di ay kóllëre seen diggante tas na yàqu na te xarala yu bees yi moo ko wal ñaata dencante seeni sëy tas na te xarala yu bees yi ñoo ko waral ak bokk gu yàqu yàlla da ko bañ te ñaata mbokk moo yàqu te jumtukaayu xarala yu bees moo ko waral rawatina am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy suuxat boddekonte ci biiru xeet di ko ca jaarale wala bodde kont ci bir tariqa man nangam laa man nangam laa di ko fa jaarale ak bodde kont ci walu politique di ko fa jaarale yeen talibi mouride seigne bassir neena seigne na muntaka neena na mi ngi denk bopam di len denk nañu gëna ngoy ci njangalem Cheikh Ahmad Bamba te njàngalem Serigne Touba weesuwul lislaam yi kese kese kese jaamu yàlla dong bañ caa keneen jàpp ci alquran dong roy ci sunna dong nee nañu fonk xam-xam bu am njariñ fonk jaamu yàlla fonk ay teggin nañu laxasaayu liggéey ba am lu lew te bu ñu amee lu lew nag ñu koy defaat ci yoonu yàlla na ko mag ña daan defee ku mel ni maam Thierno Birahim wala maam Cheikh Ibrahima Fall nañu jéem a nekk roy royukaay na ko mag ñi nekk woon ci yaatu dënn wormaal keneen ku dul yow bañ a tooñ kenn te ku tooñ nga jéggal ko suñ Basiru nee na nag ku ci liggéey ba am na nga xam ne def ci yoonu yàlla dara gënu ci def ci naal bi sëriñ Mountakha naal ndax sëriñ bu mag bi bi muy ñibbi si bàyyi na ñetti naal yoo xam ne sottiwul ci kanamam ni ko kon naal bi sëriñ bi naal ñépp ci jàpp waaye luñ ci jàppoo nañ ko xeeb yéen taale bi mu yi sëriñ bi nee na sëñ Bachirou nee na sëriñ bi nee nañu gëna a góorgóorlu ci jàngal suñuy doom lu defar seen diine ak lu defar seen aduna yar leen ya diine bo xam da na leen mëna ñak ba xajam-xajam yi ak yaqku yaqku yi bàyyi ko bitim réew bu ñëwee bàyyi leen fa ndax ndaw ñi kat li ñu yor su ëllëgee ñom ñoko yor nee bala kaddu ke daanu nak mënta ñaka sant jant gum tibbi ci xolam ak ñaan gum bi ci xolam jëmee ko ci bokkam yi mu bokkal Serigne Touba jàppale nañu ko taxaw nañ ko muñal nañ ko déggal nañu ko kon sëñ Bassirou nee na sëñ bi naan mi ngi ñaanal bokkam yi di ñaanal it njabootuk bokki Serigne Touba ya ndax nañu àndee woon ak sëriñ bi noonu la àndeek moom di di sant mag ñi jëkk ànd sëriñ Touba na séenati na fii ci biir dëkk bi am na kuréel yoo xam ne luy sàmm warmay Tuubaa ci la ñuy xëy di ca gont am na kuréel yoo xam ne dañuy dajalaatu seet ci dëkk bi loo xam ne war nañ ko faa def te état defu ko ndax état mënul lépp ñoom ñu di ko def am na kuréel yoo xam ne sécurité Touba moo leen tax a jóg ba sax daayira yi nga xam ne dañuy def su guddi ajuma jotee ñu bale li wër jumaa ci ba sax ñi ci koñ ji daayir yi nga xam ne dañuy bale seen koñ ba du am benn takk-takk nee na kon gërëm na ñëpp bayu bayu bàyyi euh, gërëm na ñëpp bayu kenn lii may tëje nag moom moom du waxi sëriñ Muntaxa waaye waxi sëriñ Basiiru la nee na mi ngi toroxlu ci kanam yàlla di ko dëkk ay loxoom di ñaan yàlla yàlla bàyyil nu fi Cheikh Muntaxa nee na Cheikh Muntaxa day bëggut a gis nit ku bëtam xonq walla ko sonn wala ko jaaxle nee na sëñ Cheikh Muntaxa lim liggéey ku ci teg bët xam ne mat naa ñaanal nee na lim naal képp ku ko xam-xam ne mat naa ñaanal kon yàlla na fa yàgg wér kon nag loolu mooy kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yu Cheikh Mouhamadul Bachir yi mu nangoo ci sëriñ bi joxoon ma ndigal ne ma nako jotuli kon nak dama ciy tegg rek lim nag delegation yi nga xamne ñoo ci keri diine yi sid Ahmad Si ad Dabaax ñew na fi and ak mbolo Madina Bay, Cheikh mohammed bashir Niass ñew na fi and ak mbolo lewna Niassène Baye Khalifa Niass ñew na fi and ak mbolo ndiasane Cheikh Ibrahim Kunte ñëw na ànd ak mbooloo ndeer naar sëriñ Muhammad Jullit Kunte ñëw na ànd ak mbooloo moom itam askaay yabal nañ Muhammadu Mbay njabootug Cheikh na Cheikh Abbas Sall sëriñ Ablaye sàll moo leen fi teewal njabootug doo mbootaayug doomi soxna yi sëriñ Habibu Saaxo moo leen fi teewal sëñ Bachiru nee na mi ngi yeesal njaalam ci njabootug sëriñ Abbas Sall ndax Cheikh Mahamadul Mansour mi fi bàyyi ko bu yàggut waa Laayeen Sina Isa Laay moo fi teewal xalifa ba sëriñ bi nee na mi ngi yeesal njaal ba tey ci mbokki Laayeen yi Canaba xalifa ba yabal na Cheikh Demba Boubacar Sarr mu ànd ak mbooloo nee na mi ngi yeesal njaalam tam ci Canaba ak mbooleem ko aju ci Canaba njabootuk Cheikh Ahmad Baro njëgéen bu Cees sëriñ daam njëgéen teew na taslima yabal nañu délégation ci njiitul sëñ xalifa jaabi jaamal yabal nañu alxaaji omar siise mu am ñu mu àndal diigaan yabal nañu xali xalifa ba xalifa ba teew na muy sëriñ ahmadu sow ànd ak sëriñ ibrahima sow morolan sëriñ jibril combaan teew na ak mbooloo bamba moodi sëriñ mouhamadou sàll ànd na ak mbooloo njabootu cheikh omar fuuti ca Louga cheikh Mohammed Bachir xalifa bu yabal na cheikh Omar Ba mu ànd ak mbooloo kokki cheikh Ahmed Mokhtar Lo ànd na mbooloo piir sëriñ Maodo si ànd na mbooloo Pete Warak alxaaji sëriñ Jibi Ndiaye ànd na mbooloo mbootaayu boroom xam-xam yi ak waaraatekat yi imaam Ahmad Dam Ndiaye teew na ànd ak mbooloo Sokone sëriñ Ahmad Mouhamad Dem ak sëriñ Ablaye Dem teew nañ ànd ak mbooloo Ibaadu Rahman Serigne Cheikh Tidiane Fall ànd nag mbooloo zawiru Cheikh Ahmad wul Fatan Cheikh Ahmad wul Fatan teew na fi ànd ak mbooloo njabootug Ahmad Qurayshin ca Ndar Pape Konaari Diagne ànd nag mbooloo DSP yabal nañu Serigne Ibrahima Diop ndànk Serigne Ali Muxtaar Kunte moo leen teewal ànd ak mbooloo Guyët Serigne Moustapha Haydara ànd nag mbooloo AIS sëriñ Ahmad Muxtaar Lo teewal na leen fa ànd ak mbooloo Daaru Salaam ndaw bu alxaaji Omar sëriñ Mouhamad Sadiq Ndaw ànd na ak mbooloo ahlullahi ndànd sëriñ Moustapha Darame ñëw na teew ak ñamu àndal Màkka Kulibantan sëriñ Mouhamad Khalifa Diaby teew na ànd ak mbooloo gara sëriñ de Dakar Pape Ibrahima Diagne teew na ànd ak mbooloo Bamba Sur njabootoog Bamba Surang sëriñ Abdou Cissé Surang teew na ànd ak mbooloo Cheikh Sa Cheikh Saouda teew na ànd ak mbooloo ca Kébémer fondation maam Xaali Amar Fall Serigne Maodo Fall teew na ànd ak mbooloo kër Cheikh Sidi Bouya Djimbira Cheikh Talib Neema Haydara teew na ànd ak mbooloo Paal Alxaaji Bachiru Ngom moo fi teewal xalifa bi ak ña mu àndal Koyli Alpha Thierno Moustapha Ba teew na fi ànd ak mbooloo njabootuk Mam Abdou Ñang serigne Muniru Ñang and nak mbolo lew kanen ca Kawlax mam Ousmane Njaay and nak mbolo njabootuk mam bakke tanjang alxaaji Moustapha Tànjang teew na ànd ak mbooloo njabootuk alxaaji ndiasse Mbay euh, serigne Pape Assane Mbay tewna na ak mbolo nguran serigne Nasik sek and nak mbolo Gambi serigne Muhammad tahiruka and nak mbolo wa kër mam makhtar Kala Dramé sëriñ Aliou Darame ak sëriñ Maxtaar Darame teew nañ ànd ak mbooloo Get Ardo Cheikh Adjuma Hadrame Ba ànd na ak mbooloo mbooloo mi nga xam ne euh, ay bàyyi defal yàlla lañu sëriñ Moustapha euh, Pouy moo leen fi teewal affaire étrangère ambassadeur Mambara Cissé teew na fi ànd ak mbooloo njabootu alxaaj Cernu Kanji sëriñ Babacar Kanji teew na ànd ak mbooloo consulat ibrahim saw teew na fi al mustarshidun wala mustarshid Mustafa njabootuk Imam abdul qadir kan Abu Bakar si teew na fi ànd ak mbooloo jamaat xisbullah sëriñ màggat kan ànd ak mbooloo mbalaxi sëriñ aliou dia teewal na fa njaboot ga eh, njabootuk almaami maba jaxu ba abdul wahab ba na ànd ak mbooloo mbootaay bi lëkkali ilimaan yi ca pikin alxaaji daam na ànd ak mbotay bi lekkal imam yi ci senegal yep imam Cheikh nak mbolo nag al njabootuk ibrahim saxo al alxaaj ibrahim saxo mu ndaw and nak mbolo njabootuk tafsir Mor Ndiour al Imam Omar njay and nak mbolo ke Kédougou ku ñu wax Serigne Yoro Mar teew na ànd mbolo rum Rumde Thierno mohammed Sow and nak mbolo Ndar Serigne Ibrahim nyang teew na ànd ak mbolo Fuladu Kabindo. Sering Muhammad Lamine Sow anak and ak mbolo Dakar serigne Abdou Wahab Seydi and nak mbolo wokam serigne mohamed nari Nari euh yabal nañu serigne Jibril salam Gueye mu and ak mbolo wa keur serigne alhaji darame serigne ibrahim Daraame teew and ak mbolo wa Ngumba Ngewul Cheikh Habib euh, Diop and nak mbolo wa Wuro Madiyu Podor Ceerno Ceerno Alpha Ba and nak mbolo njabotuk Cheikh mohamed Ndiolu alxaaji Moussa Ka teew na ànd ak mbooloo Nabaji Suul ca Matam sëriñ Abdou Karim Kane ànd na ak mbooloo Madina Sowaane sëriñ Cheikhouna Sowaane ànd na ak mbooloo Karantaba ca Casamance alxaaji Ibrahima Suule ànd na ak mbooloo Lubudu sëriñ Ahmad Bamba Ndiaye ànd na ak mbooloo Mayna Sarr sëriñ Maodo Sarr ànd na ak mbooloo njabootu Cheikh Cheikhul Islam alxaaji Maam Ansu Ñaa imaam Moustapha Ñaa ànd na ak mbooloo Nayoobe Gay sëriñ Bara Gay Euh, ànd naag mbooloo teewal fi ka nga xam ne mooy kilifa ka am na benn délégation bu bàyyi ko Côte d'Ivoire ku ñuy wax Seyid Bamba Moussa moo ko jiite ànd ak juróom-ñeenti nit la ca yéeme mooy ña mu àndal ay boroomi xam-xam lañu ay imam ak i mufti waaye am na ci ñoom ñaar ñoo xam ne dañoo jébbalu ci Cheikh Mouhamadou Mountakha am na délégation boo xam ne mi ngi bàyyi ko Mali ministre bi yore mbiru diine yi muy docteur Omar Kone teew na ànd ak mbooloo mu Mouhamadou Konaté conseiller la daam Seck euh, ak Arona Sankhare ak ñeneen ak ñeneen Maroc docteur Redouane mi teew na ànd ak mbooloo teewal fi roi Mohammed VI Mauritanie président Mohammed Ould Cheikh Al Ghazouani yabal na ministre bi yore mbirum diine muy alqaadi addaax wul sidiye wul laamar mu ànd ak mbooloo ñoom nag daaw dañoo waxoon ne corona mënut a séparer Sénégal ak Mauritanie moo tax daaw kenn ñëwul waaye ñoom dañu ñëw ren tam ñu teel a ñëw def nañu daan def ak délégation bi bàyyi ko nag ci ambassade bu Mauritanie am na délégation bàyyi ko Burkina Faso borom xam-xam boo mag ku ñuy wax Cheikh Khalid Sana moo ko jiite ànd ak fukki nit. Nigéria am na délégation bu fa bàyyeekoo ak Gambie ak nag suñ mbokki naar ya nga xam ne ñoom ñoom ñëpp xam nañ ne seen kóllëre ak Cheikh Ahmad Bamba mënuñ su ko misaal muy zawiyat alxaajiyin zawiyat addaymaaniyin zawiyat alxasaniyin ahl zawiyat ahl ajfa la amar zawiyat ahl baba wul Mouhamad Luqman zawiyat ahl Cheikh Ishaq wul Cheikh Ahmad الشرفاء أهل السيارة تكماطين زاوية قرق زاوية أهل الصلاحي زاوية أهل الشيخ أحمد أبي المعالي زاوية اليداليين زاوية تندغة زاوية المجلسيين زاوية أولاد المولود زاوية طقنت زاوية أهل الشيخ سيدي محمد زاوية الحاج مشري معطي مولانا زاوية أهل بكا زاوية أهل بيا زاوية أهل الخديم تجند زاوية الكمليليين زاوية بطلميت زاوية اشازلي بروسو زاوية الشيخ محمد فال متالي زاوية إمام الصرصارة جماعة معديات موريتانيا إدارة العمالة جمعية الصداقة الموريتانية السنغالية محمد طيفور وجماعته محمد ول أبو بكر أحمد ول عثمان جمال سيد مختار إدريس سيد محمد وال محمد سيديا السيد محمد ول الشيخ محمد وال البراكني زايد محمد والأشفع أعمر زايد الميسر زايد أهل الحسن ولد حمادي زايد الشيخ سعد ولد أبي المعالي الشهيد الشيخ إبراهيم غال مدير شركة العبارة بروسو العلامة الشيخ بابا طال زايد الشيخ محمد حافظ العلوي السيد محمد ولد بدي ولد القاضي الشريف حمادي لي موي ديليغاسيون ييغا خامني مو ne moo bàyyi ko ci Mauritanie teew délégation alxaaji Thierno Kandji waxoon naa ko léegi alxaaji Kandji moo ko jiite AIS waxoon naa ko léegi sëriñ Babacar Cissé moo ko jiite sëñ maam Cheikh Mbacke mi ngi toog waxoon naa ko léegi kon lii mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ doon jottali muy kàddu yu sëriñ bi mu teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadou Bachir mu jox ma ndigal ne ma nanga ko jottali kàddu yooyu nak fam bàyyi ko ak fam jaar ak si ci man kon lu dis gan la waye yalla yalla ku mu yen teñul la kon yalla ñu yàgg bisbi, bis bi yalla yagal fi Cheikh musumbu ba lepp lu mu sumbu yalla na ko àggale te ñu ànd kook moom damay jox kon abdullah Mbay talib Abdul Qadir mu yagal liggey bi jox kaddu gi euh, monsieur Antoine abdullah Jom. mu jottali ay kàddoom bu noppee nag sëriñ Bachirou moo koy tontu ci ndigalul sëriñ bi bu noppee nag ànd ak moom ak délégation yi dem na ca sëriñ ba nag buñ demee saafonte ak moom ziyaara ko kon sëñ Ablaye bismillah jërëjëf Cheikh Sidil Maxtaar Ka góor yàlla sëriñ bi xanaa leeral la sa ñaari doom yii di sëriñ Ousmane Mbakke ak sëriñ Cheikh Abdou Gaynde Fatma liggéey bi nga leen joxoon ndax Cheikh Abdou Gaynde Fatma ñaari tànk la fi taxawee tey ministre conseil la waaye dañ ko dénk communication bii mu ànd ko daayira wilaaya yi ci kër gi daayira wilaaya bi jàmbaar lañu lool taxaw nañu gan ñi kon nun ñëpp ñu déglu ministre de l'intérieur Antoine Diome taalibe bi Serigne Touba بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي sëriñ بي ñu ngi lay di ñaanal sëriñ muntaha mu yàgg suñu kanam te anda ak wër di nuyu njabootu sëriñ touba gépp di nuyu borom xam-xam yi ak kilifa diine yi fi tew ak njité ñi jité mbotayu l'islam yi di nuyu sama natango di ministre docteur Cheikh Mouhamadou Omar Kone bi bàyyee ko Mali te yore fa lépp lu jëm ci wàllu diine di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ bi am nañu mbégte mu rëy teew fii ci béréb bu sell bi ànd ak délégation bi président yónni ñu ràññee ci jëwriñ ji nga xamante ni moo yor lépp ci wàll lépp lu jëm ci wàllu famille di madame la ministre Ndeye Saly Diop Dieng ñu ngi ànd tamit ak le ministre Dame Diop nga xam ni moom la président dénk lépp lu jëm ci wàllu xëyu ndaw mi Pape Amadou Ndiaye mu ngi ci délégation bi le ministre Pape Amadou Ndiaye yor lépp lu jëm ci wàllu artisanat bi ànd tamit ak le ministre Yankhoba jatara yor li nga xamante ni moo jëm ci wàllu économie numérique ñu fekk si fi waaye mu ànd ak ñun tamit di le ministre Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma léegi Serigne Ablaye Mbaye leeral na ko mu am fii taxawaay boo xam ni taxawaayu ñaari tànk la benn bi ministre conseiller la ci présidence benen bi moy mu bok ci njabotuk serigne bi ba nopi am liguey bu reuy bu muy def ci walu comité d'organisation bi am na ay député ak ay haut conseiller yu and ci délégation bi wayé ki nga xamante mo téwal njitu njiitu réew ci bop région bi téwal fi lépp loo xamante ni dafa jóge ci gouvernement bi muy gouverneur Njaareem ak préfet wu Mbakke ak sous préfet wu Ndaam ñu ngi tamit ci délégation bi sëriñ bi suñu ñëw tey président de la république son excellence Macky Sall daf ñu yebal ngir jottali nuyoo ak ziaré bu bawoo ci moom jëm ci xalif général de Mourides sëñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg te ànd ak wér jëm ci njabootuk sëriñ Touba gépp waaye jëm ci mbooleem jullit yi ak taalibe yi di ndokkeel ci turu président sëriñ bi ci bés bu tedd bi nga xamante ni mooy màggal gi di sàkku ci moom ay ñaan waaye di ko ñaanal yàlla sàmm ko sàmm mbooleem njaboot gi

mu am ak yëg ak fonkeel gu rëy nekk ci seen diggante te waxtu wu ne président mi ngi koy feddali ci wàllu bis bi daf ñuy soññ saa su ne ci bu bis bi dikkatee ñu taxaw ci taxawaay yi gën a rafet ba tax na boobu ba bu yàgg ba léegi ñu ngi ciy am ay jotaay ak di ci amal ay lël yoo xamante ni lenn waralu ko lu dul su bis bi ñëwee ni ko sëriñ Cheikh Ka waxee léegi bis bi mel na mu daa mel wala mu mel nu ko gën a rafet président moo tax bu màggal gi ñu koy séentu saa yu ñu koy séentu day joxe ndigal ci lépp luñ ci war a def ñu def ko ba lépp jaar yoon lii nga xamante ni nag mooy màggal gi xam nañ ni ak cant la ñu teew fii di sant yàlla moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee xéewalu teewee bis bu tedd bii di ci santale sëriñ bi boroomam moom mi ci yàlla defal xéewal yu rëy yam ko defal ba mu woo ñépp ngir ñu santale ko sëriñ bi waxoon na ni shukru ilaahi xaana fi turaabi baxda jamili sabri fi ixtiraabi sant naa sama borom ci sama biir réew gannaaw muñ gu rafet gëma muñoon ca fañ ma doon tumuranke bis bi mooy màggal laata muy doon bisub sant bisub nattu ak tiis la doonoon yàlla tànn ci jàmm bu mu sopp te gërëm ko jox ko mission bu mu war a liggéeyalee lislaam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu war koo jaare ci ay nattu ak i tiis waaye fekk na yàlla ca nattu yooyee lay dëxëñ ay mayam ak i xéewalam mu mel ni sëñ sëriñ bi dafa jël nattu yooyee def ko buntu yéegukaay ngir mën a jaar mën caa jaar ba jege boroomam am fa cër ya gën a rëy fa yàlla taxañ yoonu gaa yi baax ñi agg ca maqaama ya gën a kawe te loolu lépp bu dul woon tukki bii ak liggéey ba mu fa liggéeyal yàlla du mën a am ni ko sëriñ bi waxee ci middaadi yàlla moo a taxañal yoonu gaa yi baax ni waxtu wi ma koy liggéeyalee ak a boole ca fajal ma samay aajo tàggatal ma ko te jàppandel ma ko màggal kon mooy sant yàlla cant nag ni ko sëriñ bi leeralee ci masaalikul jinaan mooy nangu ni xéewal yi nga am yépp yàlla moo la ko jox nga jël xéewal yépp delloo ko yàlla ci say wax ci say jëf noonu la ko sëriñ Basiiru Mbàkke mu baax mi leeralee tamit ci Minanul Baaxil Xadim cant nag dafa bokk ci maqaama yi gën a kawe ndax jaam bi lu mu am ci yàlla la jóge kon li war mooy delloo ko njukkal ciy waxam ni ma ko leeralee léegi ciy jëfam doxalinam ak nekkinam ci kaw suuf moo tax daanaa faral di dégg sëriñ Saliou Mbacké mu baax mi di ko fàttali muy aaya ixmalu aala daawuda shukran moom la suñu boroom digaloon njabootu yenentu yàlla daawuda ga waaye sant dafa jafe moo taxit yàlla mi ngi fàttali nii ñu néew a néew ci jaamam yi ñoo ñi koy sant ba tax na ci alxuraan karim fu yàlla indee sant lim koy safaanalee mooy weddi kon day wone dayoo bi sant am ci diine sëriñ Saliou tamit dan na ci teg di wax ni doole ju sukkur am ci yiw kufur am na ko ci safaan waaye ndokk yàlla dafa fekk sëriñ bi yéene ñu jàmm muy Cheikh Ahmadul Khadim yéene mbindeef yépp jàmm moo tax mu boole ñu ci cant gi digal ñépp ñu santle ko boromam ci li mu ko defal kon maa ngi ñaan yal nañu yàlla boole ci ñuy dugg ci cantuk sëriñ bi te nangul ñu ko kon sëriñ bi président mi ngi feddliwaat mi ngi feddliwaat yéeneem ak taxawaayam ci jàppale sëriñ mu Muntaxa ci liggéey bi yéeneem ci dëkk bi rëy na lool yàlla dogal na mu jot mu jot cee def yu bari lu ci mel ni wàllu assainissement ba ci hôpital Cheikh Ahmadul Khadim bi mu fi doon inauguré ci fan yi naal bee Serigne Mountakha am te Cheikh sëriñ Cheikh ka fàttali ko léegi muy ci université Cheikh Ahmadul Khadim bii ngir liggéeyal Serigne bi liggéey bu kawe boo xam ni askan wépp a ko tax a jóg yitteel na président lool te bàyyi na ko xel fas na ko yéene ànd ak sëriñ Serigne Mountakha ak bépp sumb boo xamante ni am na ko président mi ngi sàkk bu baax ñaanuk sëriñ bi ñaan yi muy ñaanal réew mi tamit ñëpp teg nañ ci seen bët kon suñu yaakaar gën naa dolliku di ñaanal yàlla sàmmal ñu ko te mottalil ko yéeneem yépp ñu yàgg ànd ak moom bis bi te daje daje ci ak tuyaaba yi gën a kawe والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الو لا بلاي مريد وحنا مريد وحنا دك لي بوك تيون ياك مو خام بلاي مريد وحنا جرجاف انتوان سيرن توبا مل نونو دي غورنر لا نوري دينار تاي انغا غورنر يبيالي نيف ñëw di taalibe bi sëñ Bamba wax lii bilaay yàlla fay na sëñ Bamba murit wax na bisimilah ñu déglu Cheikh Madul Bachir waaw doo am dafa am tuuti lu Cheikh Sidi Maxtaar ka bëgg a leeral waaw maa ngi jégluwaat di yëkkati kàddu yoo xam ne ndigalul Cheikh Mouhamadul Bachir Cheikh Mouhamadul Bachir nee na ku gëstu ci jaar-jaari Cheikh bàmba Bamba lu mu néew néew néew xam nga ne waxtu sunu boroom bu dëgmalee amatul jàmm lu mu ko fekk da koy bàyyi ba def farata ji ba noppi door a def lu muy def te waxtu wi dëgmal na tontu fi monsieur Antoine Abdoulaye Diome xaju fi kon nag nee ndigal li mooy nañu jekkal jataay ñu bëgg a waaju waaj ñu julli tisbaar bu ñu sëlmalee soo koo jox kàddu gi mu ton tontu ko tontu li nga xam ne ci sëriñ bi ci sëriñ la bàyyi koo jëm si ci moom kon nag julli rek lu ñuy def doo ko def bismillah waaw ñu defal ñu jekkal jataay bi jë bu kenn raj raj loo nañu wëlbatiku rek ah des na des na lu toll ci juróomi minute waaw ñu déglu Mountakha Gueye mu jàng nañu déglu Serigne Mountakha Gueye mu xat الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من ظنني غير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى waaw mu ne bu ñu sëlmalee moo doog a yëkkati moo bi munu bu ñu sëlmalee muntaxaa gay yeggale xasida gi bu ñu sëlmalee muntaxaa gay yeggale xasida bismillah ñu may kilifa yi ñu dendante ñu defaru bismillah am rajo bi am waxuma dem waxuma dem yóbbu ko yóbbu ko am Restez digital. Six. LinkedIn, Instagram. Digital Store. Restez digital établissement Mbaye et frères que spécialiste les lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox ciment pour toiture boubouge bëggee tabax lu mucc ayib fer forgé pour menuisier métallique Il pour plafond à 13 à gamme ouverte. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woté ci établissement Mbay et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmed ngeen woté ci sen succursale ci lot 3B Scat Urbane Grand Yoff établissement Mbay et frères ay ndaw yu xarañte mën sen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko expliquer succès Jolof Chicken Jolof Chicken fii ci Ndakaaru Jolof Chicken ci réew mi yëpp Touba yéen ko doon laaj. Eh, yaakaar naa station ADK yi mi ngi ci dëkk bi waaye tey mu yokk ci lii eh, lii nag eh, njariñ la lu am solo yoo xam ne da ko am ci ab dëkk muy investissement. ku mel ni kii. réew mu ko am da nga koo war a jàpp ndax gannaaw créé wutal ndaw ñu liggéey ñoom la war moom mu jóg taxaw di wutal ndaw ñu liggéey ko jéem a créé fii moom créé na Touba lu tax ñu ñëw fi Reka dafa am lu bees lu ñu naan jolof ci kën comme nañ ko defee feneen ak feneen lañu ko ñëwee biir Touba def ko fi te muy lu jaadu nag lool dañoo bëgg doomu dëkk bi di liggéey ci lu mel nii jolof ci kën bu amee ci gox dafa am emploi yoo xam moom lay créé ñun suñu politique sociale mooy dem ci gox def lu mel nii ba pare jël doomu dëkk ba ñuy liggéey kon loolu mooy li nga xam ni moom la EDK mébét. waaw ñu si ëpp nag ndaw dëkk bi lañ mais jël nañ leen fii bien avant ñuy ibbi ñu yóbbu leen Dakar fii lañ leen jëlee yóbbu leen Dakar ñu former leen foofu former leen tàggat leen si liggéey bi ni muy doxee ak ni ñu bëgg liggéey bi doxee former leen si jox leen xam-xam bi war a mën a tax ñu mën a yor liggéey bi tey bi ñuy ibbi. ñu delloo si waat leen fii ci biir Touba. janoo ak marché xayra ci wetu Sékouba ak la poste Jolof Chicken une fierté bien sénégalaise. Jolof Chicken ak croustillant commande-le, rek ñu livré le ñu may kilifa yi ku ne dellu fa nga toogoon. na ku ne dellu fa nga toogoon البريل ويفاني وثري زكية لمن لي خادم بما في لي من غير بموسر ولا وأقلامي وقلبي وجثتي لمول الكريم منها في جل لنا أرسل المختار عبدا مخدما خليلا خليلا لو دار أمدائي قديما مخاطبا وللقاد في أمدادي الخروج عليك سلام الله يا ماي الجليل لك الموجدات الخالقات التي بها أتى القبل من غير بها جملة الرسل لك سلك قدارا بذاق البداوة كما التقى بدر الفام لمن أنزل الآية التي قلت لي بها كتابا عزيزا بينا الحق بالفصل لثانية والأوثان وعبد الملوك وعبد وأولاد ونفسي ما لو رؤي وجمالي فقل لي أنت الخليل لي ويا خير ذهبي وثرواك لم يخلق أنت لي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم خرجت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في شهر صفر سبب غيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في الدوم من ظنني غير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنة من ظن أنه يكون أبدا يرضي بالذي كخدمتي بدا فغره الضلال والإضلال ينقاد لي منه به الحلال مدحته قبل لدى لي برولي مدحا ونا عن مثله كل ولي مدحته مدحا لدى ما ينبى محى عيوبي وكف الذنبا مدحته عند أناس الدلوى مدحا كفاني العدا والبلوى مني إليه خدمة قد لازمت روضته إلى القيام أنظمت رضيا عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سول رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سول رضي عني سبته جيلاني عليه رضوان الذي أعلاني رضي عني سبته أبو الحسن عليه ضوال يخلد الحسن رضي عني سبته التيجاني عليه ضوال المبيد الجاني رضي عني خلفاء الأربعة حست رضا المقربين المطبع من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني رضا ليس يريم جزى الإله المصطفى خير جزاء كما تقبل وعدا أنجزا صلاة من كرمه يلقاني على الذي ينلمرا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 kàddu nuyu ak i cant ak ngëm mboolem mbokk réew di fi jëmmi Serigne Touba ci kaw suuf di a Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na suñu boroom guddal aw fanam te dolli wéram dolli kattanam ba mboolem naa yu mag yi mu am ci lislaam lépp suñu borom may ko kattan ak wér ba lépp mu mottali ko ni ko bëgg ci barkeb Sëriñ Tuubaa kon dañuy tënk rek ndax li ëpp te lañu ñoroon ci li ñu waroon wax joxoon nañ ko sunu sët bii di Sëriñ Cheikh Ka xam ngeen ne di ko jëme ci ci jiite réew mi di président de la république Macky Sall di ko sant bu baax ni mu ko ko waxee bi mu fi jógee barki bu rek ci bi muy ubbi liggéeyu ñi mu ko teg ci seen loxo yi ñu def ci yitte ak jom ak pësef fexe ba nañ ko war a defee ak nam leen ko digale ñu toppee noonu ba àgg ndax jàpp naa ne bi xew-xew bi amee ba sëriñ bi yónni ma ba ma jox ko yow nga jox ko moom li ngeen ci defa ko néew ceeg màggat gi buñ ko tegee ci loxo ñu farloo noonu kon bu nëgëni see déwén dana fekk lu bari saafaraw ci kon nag ñi mooy université bi waaye bu université bi jeexee jàmm li ko gën a ñor ci ay yitteem mooy ñaari ndox yi ndox mi ñuy jëfandikoo ci biir dëkk bi ndax ñëpp xam na ne jafe na ci dëkk bi bu ñaareel bi mooy ndox mi wal di dugg ci biir kër yi ñaar yooyu nag mooy itte yi gën a ñor sëñ bi ginnaaw université bi loola nag incha allah bu àndee bu yàlla